billahi mina seytaani rajimi bismillahi rahmaani rahimi ñu sant yàlla julli ci sangu sang yi Seydina Mohamed sant suñu ñaari waajur sant suñu machara Cheikhul Khadim di leen nuyu bu baax di leen ziare te di leen balu àq yéen nga xam ne saa su ne yéen ñu topp ci Waarwi TV nekk alalu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul tey jii nag di bis bi nga xam ne mooy bisu Kazu Rajab ñu jagleel ko Serigne Fallou Serigne Fallou nekk ñaareelu xalifa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul te jamono bi muy doon xalifa boo réew mi métti na lool ndax jamono deuxième guerre mondiale la sëñ Saliou Mbaax ma nekk xalifa sëñ Touba sëñ Fall nekkoon kenn koo xam ne dafa matala tey matali ndax sëñ Modou Moustapha mu baax ma magam ju ja dafa jël ci jumaa ju sell ji ma woon ginnaaw liggéey bi am fu mu toll woon sëñ Fallou yeggale ko woote ko ñu julli ko loolu moo lay xamal ne si Ahmadou Bamba Khadim Rassoul njabootam danoo mat ci mataay boobu Kazu Rajab nag at mu jot ñu koy woote diggante daaw ren mu doy waar lool ci li nga xam ne moo dugg ci réew mi muy mbas mi sonal ñu lool nag nekk feebar jàngoro joo xam ne yàlla rek moo fi mën a jëlee yàlla na ko fi jëlee ren jii nag 2021 ñu dellusiwaat fii ndax 2020 fii lañ taxawoon di wax a yéen yàlla may ñu kattan ban dellusiwaat fii 2021 di wax a yéen ñaan suñu borom may ñu kattan. bu 2022 ñu desuwaat fii waaye mu wuute ak yi ak ñaaraat yi jàll kon nag ñu ñaanal sëñ Jili yàlla na ko fi sëñ sëñ Jili sëñ yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te wéral ko moom sëñ Modou Bousso Dieng foofu lañ jóge ñëw fii dem sëñ sëñ Dame Fall moom soxna meenam sëñ Fall soxna meen nag di taaw sëñ Fall Mbàkke foofu lañ jógee ñëw fii nag ci buntu ko sëñ di diggante ko sëñ Fall ak jumaa ji di ñaan sëñ Abo Mbàkke yàlla yàlla guddal fanam ak cëram kon na da ngeen ñuy topp ñu dugg ci biir wala ñuy ziar yëpp di ziar sëñ xaadim sama taw bu góor bii nga xam ne tey mi ngi jàpp ci liggéey bi kon sëñ ñu ànd ci biir ziar yi ñu ngi jéggalu baat bi nag danoo soj mais yéene la demee ak pas-pas ak bëgg sëriñ Fallou rek bii sant yàlla bu baax di ndokkeel ak Cheikh Mouhamadul Fadil ci bis bu tedd bii ñu ñëw fii nag ci sunu wayjur Serigne Abul Baraka moom Cheikh Mouhamadul Fadil di ko ñaanal sunu borom bi may ko fanu gudd lool te ànd ak wér di la ndokkeel ci sa bisu wayjur wu tedd wii ñu ñëw fi nag di taatan bisu ngërëm bisu yërmande bisu xéewal ndax ki nga xam ne moo ci feeñ jamono te Serigne Touba wayjuram moo wax ni kasrajabin akramani kasraja daf maa taral fadlullahi wa rahmatu mu ñëw na ci guddi gi nga xam ni ci la sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam def laylatul isra wal mi'raj muy riñaan gi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam riñaan na ko Cheikh Mouhamadul Fadel Mbacké daan wax ni yonent bi dañu lay rek mu ne cëpp kon dafa mel ni ngëneelu sëñ Fallu dafa ñëwaale ci weer wii ak bis bi tey nag ñu ñëw fii jàkkaarloog doomam ju sell ju baax ji macha allah di ko ñaanal fan wu gudd ànd ak ñu di ko wax Serigne Abul Baraka moom Cheikh Mouhamadul Fadel Mbacké di ñaan sunu borom zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyal Mustafa tajtahidu sunu borom tabaraka wa taala defal ko ko bu baax mu yàgg ci jotaay bi lool te ànd ak wér gu yaram ci barkab Cheikh Mouhamad al Fadil ndax ñëpp ñu ngi bëggee Serigne Falilou Mbacké mboolem soppe yi ak xarit yi ñëpp bëggoon na waaye xam ngeen ni jamono ni mu ni ni mu tëddee la ba tax ñu yemale màggal gi waaye yaakaar naa Serigne fallu mbiram ci xol la nekk Serigne Fallou mbiram suñu borom daf ko bind ci xol yi ndax mooy fallu fallullahi mooy ngëneelul yàlla ngëneelul suñu borom nag amul fu muy yem moo tax sëñ Mouhamadul Fadel Mbakke wa ma arsalnaaka illa kaafatan li naas Serigne Fallilu Mbakke daf koo jëfe woon wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina waaye Serigne Fallilu Mbakke soo ko laajee kañ ga fen jamono mu ne demal ci alquran yàllaaw yóddoomi ila daaru salaam kañ nga ñëw fan nga dëkk mu ne Touba ñu ne Cheikh Mouhamadul Fadel Mbakke yow yaay kan mu ne man may fadlullahi wa rahmatu may may ngirmaande suñu borom may ngëneel mooy tax fadlu tax ju ko yàlla defal bu baax ci jotaay bi seen yi nag ñëwoon fi di ziare Serigne Abul Baraka ci bis bi di ñaan sunu borom mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal sama mag ju baax ga Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak gi yaram kon Mbàkke ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziare di ziare njabootu Cheikh Mouhamadul di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu yàggal la fi lool te ànd ak wér ñu ngi sàkku ci yow ñaan bu baax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu Yàlla na dalay barkeel amiin yàlla na dalay barkeel